dañuy dugg si ñoom xool ñoom nan lañ dundee kan bi xool itam tey lan mooy seen sentiment ginnaaw bi nga xam ne 17 ans après Sénégal finaalu waat na yëkkatiwaat raaya réew mi ci Afrique Eh, ginnaaw nuyoo bi tey moo waral mobilisation bu rëy bi ngeen def pour accueillir Lions yi. suñu objectif attendre nañ ko parce que franchement bu ñu soñoon suñu mënoon dañuy indi fii coupe bi muy seul suñu première étoile. mais yàlla mooy maye yàlla mooy xool ko neex mu may ko ndam may na ko Algérie ñëpp ay sportif lañ xale yi football nañu. kontaan ngeen daal ci Lions yi. non franchement man maam góor sama laa xam ak ñi ma kontaan nañu. mais xaw ma nag parce que li nekk ci xolu nit man xaw ñoo bokk koñ de de moo ñu mag dëgg la mais ba muy fubal nawetaan di fubal championnat ñoo ngi toog di assister euh, sëñ bi ma lay nuyu la wax ban sentiment moo la animé tey jii fi nga taxaw nii di xaar lion yi suñu lion wuñu quoi parce que boo xoolee match bi ñoo ko ñoo ko ñoo ko joué amuñu chance pour gagner ko kon donc dañuy naan ñoo ngi seen ginnaaw pour toujours waaw duñu ñun waaw du ñu xaddi du ñu bàyyi waaw ndax ñun Sénégal lañu am waaw ñu ni naan li yooyu si kaw si kanam. soxna si euh, naaj bi tàng na waaye teewul ñëw nga def déplacement bi yor sa drapeau pour soutenir les Lions yi ginnaaw parcours bu am solo bi ñu def ci kan bi. waaw waaw dañuy dellu sant yàlla di leen gërëm bu baax baax baax di leen wax ne allez les Lions nous sommes tous derrière vous vraiment nous sommes fiers de vous tous les Sénégalais sont derrière vous vraiment vous avez montrer tout ce que vous pouvez mais Dieu a fait ainsi et on l'accepte on vous supporte allez les Lions. ba léegi fii si stade Léopold Sédar Senghor gis ngeen mobilisation bu exceptionnelle bi nga xam ne euh, supporters sénégalais yi ñëw nañ ko def pour teeru Lions yi yéen ngeen jógee ba fan pour accueillir Lions yi. man maa ngi jógee ba yëmbal yëmbal laa jógee pour ñëw accueillir sénégalais yi quoi parce que sénégalais ils n'ont pas démérité li ñu mënoon yëpp def nañ ko moom. parce que Sénégal bu ñëwee fii bu ñëwee ba euh, final c'est grâce à Dieu comme nañ ko sant yàlla quoi ñu bañ a jël foti bi yëpp ñoo def li joueur yi def li Sénégal daal sa kaw sa yàlla moo dogaloon ni

du mos a jeex yàlla moom saa yu dogalee ne Sénégal dina jël coupe la dina ko jël te bay ay jàmbaar ay guerrier la voilà ba légui euh, supporters yi ñu ngi fi en liesse ngén euh, di gis ni ñom ñoom weddiwuñu ben yoon lion yi amna ñu mbégte au contraire si parcours bu am solo bi nga xamné ne Aliou Cissé def nako ko sëñ bi euh, fan nga joggé tay ba waral nga def déplacement bi ci naaj bu tang bi ngir ñew teeru lion yi. wa salam salaamaaleykum ma ngi leen di nuyu seen tur di leen sant ma ngi tudd Zizou dëkk Pikine ginaaw raay waaw tay Sénégal moo ayé on est très content ñun duñu xaddi jamais de la vie.

damaa ñëw fii ba tamit signal laa départ ak drapeau yi oto ñoo ma rek ma kontaan population yi ma bëggee population yi gis nga may même benn passe fay ma ko indi ba fii fii lañ ma wàccee Padoua Padoua Espoir ba fi tànk même buñ lay xool euh, da xaw sax sàcc tuuti Sadio Mané da nga koy roy ba ci euh, bi parce que kontaan ci moom trop parce que maa ñaan dixième dixième gaynde ñu ne ko encourage ñoo ko ñaani Sénégal dem kanam kenn bañ a critiquer joueur yi quoi te mbaa ma ni ko mbaa content na quoi donc saa ma ne nga kanule alaan kii laa parce que ak mu ngi Sénégal la. bien fait parce que à la saa ay école la jëlee.